intérieur cuir, moteur sans problème, année 2016. Si vous souhaitez avoir des informations ou contacter, téléphone 77 484 87 98 484. ngeen jëf mbokki Sénégal jërë ngeen jëf mbokki àdduna rawatina yéen ñi suivre seen site bi Lutte Sénégal TV ñu ngi leen di nuy di leen siyaar di am mbégte kontaate comme ni ñu ko defee chaque jour rek di leen toppal lamb ak li ci biir. nee naa la ceer la ak njaga fépp fu gars nekk rek ñu fekk leen fa tekk leen suñu micro waxtaan ak ñoom moo waral tey ñëw fi nga xam te mooy université c'est si un grand champion di ndaanaan muy Pakala Pakala ba Mbour ñu fas yéene waxtaan ak moom depuis combat ak ki nga xam te ne bii mooy euh, Forza ba léegi amuñu ak moom euh, jàkkaarloo tey nag ñu fas yéene waxtaan ak moom waxtaan ak moom ci combat bi ak ci carrière am dañ koy bàyyi ma nuyu nuyu ñuy suivre su ko defee ñu wut waxtaan mais lu jiitu loolu ngeen wéy di abonné bés cloche bi xaar vidéo yi wàcc en temps réel. Pakala maa ngi lay nuyu di la siyaar. waaw maa ngi lay fay. di la nuyu di la jox sa wàccuwaay. di nuyu suma ami suma doom day démb lay di la nuyu yow mi war defal interview bi. di nuyu seen site bi di leen naan ah yaagoo leen tamit waaye yaakoo leen si dara. Mm-hmm. bu ngeen ñëw ba léegi yéen a ngi tegu si temps wu làmb. di jàppale amateur lamb di jàppale waa axlu lamb rawatina ñun ñuy mbëri hmm. ñoo di ñu interview bu la hmm. neexoon ngeen bañ a déplacé ñoo di ñu interview hmm. mais da ngeen bàyyi seen lépp ñoo di ñu defaral interview loolu rek ñoo leen siy sant bu baax di leen gërëm di leen jox seen wàccuwaay. am na solo bu ñu koy présenté à travers du Sénégal kan mooy Pakala. waaw Pakala Pakala ngi rek. nekk euh, mbër mu simple. dugg si lamb 2006. am si ay ndam ay ndam yu bëree bëri sax. Hmm. depuis 2006 yaa ngi ci làmb. depuis 2006. Hmm. mun naa ne victoire yi ñoo ëpp defet yi. Hmm. defet yi moom si aar moom lu lu néew la. lu néew la dafa man maa ngi 16 combat. 16 combat. waaw maa ngi 16 combat. presque maa ngi si Forza moomu daan Abdou Diouf. waaw maa de booy xool. par décision arbitre la ma génnee quoi. muy muy 3 défaites. 3 défaites Mm-hmm. trois défaites treize victoires. treize victoires. Mm-hmm. victoire yi yan ak nga bëral ñoo xam ne làmb xam na leen. trois waaw ñu ma ñu ma bëral ñëpp xam na leen. Mm-hmm. mais damay wañ ñett ñoo xam ne nii làmb gañ leen leen xam ku si mel ni Boy Naar. Boy Naar Elton. Matar Gueye. Matar Gueye bu Thiès. waaw ñooñu rek làmb xam na leen. ñeneen ñi làmb xam na leen mais presque xaaj bi yëpp bàyyi nañ làmb booy xool. waaw sa defet yi dina am neexul mais ban moo la si gën a metti sama defet bu ma gën a métti. waaw waaw damay sant yàlla rek. nga mm-hmm. xam ne dama doon daan ay doomu jaamur muy neex. Mm-hmm. bu la daanee dina nakari nag trop nag mais da ngay daal di gëm yàlla rek te xam ne yàlla mooy maye. Mm-hmm. mooy xañe. waaw benn defet mais am na gën a neex. benn defet neexul. waaw neexul mais am na boo xam ne bi nga demee sa biir kër xam nga tey moom vraiment ma lu ma neex carrément quoi. waaw sama combat paas nii damay gëm yàlla rek am naa defet mais xam naa. yaa bi defet bi neexuma. Mm. donc nag maa ko njëkkoon daan. mais defet bii moom boo bëggee dégg-dégg neexu mais damay jaa daal di gëm yàlla. Mhm. te xam na yàlla mooy maye mooy xañee. Mhm. njëkkoon nañu bëre yàlla may ma ndam si kawam. Mhm. kon bu ñu bërewaatee yàlla may may yàlla may ko ndam sama kaw rek. damay sant yàlla damay sant yàlla dem liggéeywaat te xam na yàlla jeexul. combat jàpp ne mu la ko perte loo. combat bi. Ah. xam nga sa adversaire moom boo ko ñëwee bu mu ëpp rek. waaw. mun na laa indil erreur ay erreur. te sama adversaire dama ko ñëwee woon ba mu ëpp si combat bi. waaw man kon yow li gars yi di wax ni euh, Forza ragal jàpp na dafa am dafa mel dafa xaw ragal euh, Pakala. non xaw ñeme ragal Forza ci combat ba tam perte ko loolu yow doo ko dëgg. non déedéet déedéet mhm. nga laam moom di nga jàpp benn affaire ne lii lii lii ah. lii rek lay doon. Uh-huh. mais après ngay comprendre. Mhm. man dama jàppoon na arbitre bu yàbb sifflet bi du ñu am ay minit mhm. loolu laa jàppoon. mu ñëw demee nii. kon damay sant yàlla bu baax rek dem liggéeyaat. Mm-hmm. waaw. Mm-hmm. Mm-hmm. dem dem liggéeyaat mais dañuy gis sa combat bi. da nga mel da nga a poids a entraînement ba ngeer la wala lan la. waaw combat bi nag dama see physique ba ngeer nag. dama see physique ba ngeer. waaw booy xool nag te tegu tegu naa si ay coono yu métti. waaw loolu combat boobu combat boobu moo ko laaj wala adversaire moo ko laaj wala ñàkk entraînement bu kii la quoi. non vitesse laa si bëggoon rek. <laughs> vitesse laa si bëggoon rek. mais xam nga nit moom di nga def dara foog looloo lay jàppale fekk loolu lay gaañ. Hmm. waaw. Pakala ay jafe-jafem ci biir làmb lan la. ah sama ay jafe-jafe si làmb. waaw ah jafe-jafe booy xool benn instant yi mbëri dañ lay daw. Hmm. du nangoo bëreeg yow. nangoo bëreeg yow. doo dàkke. te fii mbër moo fi gën mun naa ne mbër moo fi gën a baax palmarès ay benn benn mbër lañu. Mhm. te kon lamb gi ñooy mayante xaalis nañ ñëw ñu bëre ñoo moo gën tegg bi. moo gën tegg bi sama adversaire ba ma daane ba léegi gars yaa ngi koy teggi. Mhm, ñu ngi koy moytu. waaw man sax lu ma si am sax moom mun na ne ma amu ko ndax man woo nañoo di ma wax ay combat. ah gars lay proposé. waaw c'est que combat yi ñu may wax noonu man moo ma gënalul. comme kan ak la noonu. doon nañu wax sama sama combat ak diggante Serigne Ndiaye ma ne leen Serigne eh, xale boobu daa weex de. ma ne leen Serigne Ndiaye instant nii na na rañewaat ba si kanam rek. Hmm. waaw des na quoi. des na. Hmm. bu bu bu yeggee rek bu ñëwee may ko sens. may ko sens mais pour l'instant nii. Hmm. na bu rek ay moroomam ba si kanam. Uh-huh. mais pakala bi ñu xamoon. Mm-hmm. pakala gars bi saf sàpp wex xat. gars di ko moytu gars yi naan pakala galaaj yi baaxul. gars di la taw pakala boobu ak bii léegi changement bi jaaxal na gars yi de. waaw àdduna moo demee noonu. Mm-hmm. àdduna tey day neex suba mu nakari. Mm-hmm. moment yi may téye gars yi di leen daan. Mhm. nekkul sama njàmbaar nekkul sama ngóor nekkul gaa laaj nekkul dara damay jàpp na yàlla moo doon ànd ak man rek. Mhm. waaw yàlla moo ànd ak yow. yàlla moo doon ànd ak man mais bi ndax Pakala amul lu mu doon def daal koy bàyyi ba tax léegi booy yi xaw ko ñeme. wala non làmb moo demee noonu làmb tey ñii dañ fiy nekk suba ñee ñee ñëw. Hmm. ginnaaw suba ñee ñëw làmb moo demee noonu rek. Hmm. waa instant ñu toll nii làmb kenn mënul kenn ah. kenn mënul kenn mun nga teg a ak ay victoire na foog na yaa mun ñëpp. Hmm. da ngay jàpp na benn jour dina ñëw rek nga tegle si ay defet ay defet waaw làmb nekkul yàlla day tee benn mbër di ko may ay ndam rek mu continuer noonu. Mhm. ñii dañ fi nekk tey ñii nekk fi suba ñii nekk fi ginnaaw suba. bi ay ci mbapat. <laughs> bëre dóor teg la ay série de victoire gars yi di ko moytu ak pakale jaaxal na ma ko waaw aduna aduna moo demee noonu. Mhm. boobu sama vidéo moo fenkoon rek. jamono ji ay vidéo yeneen mbër ñoo fenk. ñoo fenk aduna moo demee noonu aduna tey day neex su ma mun a kari. Mhm. làmb mbër mu gëm yàlla moo koy def de. boo gëmul yàlla nii bu defet yi bëree rek. mun ngaa découragé bàyyi ñu ko. Mhm. waaye man damay jàpp ne yàlla ma doon may démb. Mhm. ak yàlla bi di ma xañ tey lépp lépp benn la rek. damay góorgóorluwaat rek liggéeyaat ñëw. Uh-huh. Mhm. gars yi ñu ne Pakala est-ce que nekkul dafa topp fo bi à 100 pour cent ba tax làmb li mu ko farataaloon bu yàgg ba ak léegi am différence. non looy dox di foo. boo nee ba yàlla may la sonn kay xanaa doo foowati. damay jàpp ne xëy na. toog moo toog ay at compétir ma loolu yëpp gée na si. waaw loolu tamit da ciy gée dem ba ñàkk repère. Hmm. waaw da ngay dem ba ñàkk repère. ñàkk repère waaw. mais damay jàpp ne. Uh-huh. pakala mu woon dem ak pakala mi yëpp benn la. benn la quoi a yàlla doon may tey moo a xañ. Uh-huh. sa at na moo waaw demee noonu rek. at moo demee noonu. Uh-huh. sa diggante ak Forza bi nga daan après lu mu waaw da jàngal lu bëri. waaw lu bëri loo xamul woon après da ngay dem ba xam ko. da ngay jàpp ne àdduna moo demee ne ci wàllum yokkat doole ci wàllum entourage wala ci wàllum. Euh, waaw si si lépp. Mm. si lépp entouragement toogaay beeg. Mm-hmm. wàllum entraînement beeg wàllum récupération beeg. àndandoo bi. àndandoo bi lépp décisé. Mm. waaw xam nga àdduna moom balaa ngaa xam moom. après nga xam quoi. après ngay xam après combat bi daf maa jàngal lu bëree bëree bëri. mais damay jàpp ne yàllaa ma doon may tey ji yàllaa xañ. Mm. xam nga àdduna moom. looy gën di dem rek. waaw di gën a gën a xam àdduna. looy gën a yeew quoi. Mm. Mm-hmm. moment bi nga xewee paka la paka la la ak mm-hmm. moment yi nga xam tamit yaa ngi ci xaw a nekk ci ay jafe-jafe. Mm-hmm. noo ko dundee ak asey nit ak loo si jàng après. waaw àdduna da koy gérer rek. àdduna moom ñu ñuy ànd ak yow te yàlla tax nañ ànd ak yow te yàlla tax ñuy ànd ak yow ngir ndam rek. Mm. bu ñëwee bu ñu gisatul ndam yi. day demee neneen. mais mbër bu si nekk yaay am sa fulaay fayda bopp gëm sa bopp rek. Mm. te xam ne fii bu nga yeew fajar dem entraînement. Mhm. kenn gungewu la booy dem musculation kenn gungewu la yaa yaa am sa gëm-gëm bopp am sa fulaay fayda bopp. Mhm. yow yaay am fulaak fayda kon ne rek. Mhm. te xam ne yàlla jeexul. fii mbër daanu na fi daanu daanu bañ neeru daanati mbër mu ñëw xewaat. mu ñëw xewaat waaw àdduna moo demee noonu. affaire yi bul la rek day wër rek. day tourné waaw. ñi ngi xaar Pakala wàccaat ci simple bi. waa bëggoon naa wàcc nag man maa bëgg a bàyyi. ba déwén ndax dama blessure sama mbagg blessure bu métti. Mm. waaw avant combat bi. Mm. moom laa bëggoon soudani mais instant ñu toll nii tane na. Mm-hmm. comme que saison bi lu si des bëreetul. <laughs> dañuy taw rek. bàyyi gars yi gérer. Mm. bu déwénee lu ñu yàlla may ñu. wàcc rek xale yi xale yi léegi ñu ngi wàcc xale dañoo saf de. waaw moo demee noonu xale yi moom ku ba ñu daan la doo ñëw. man seul mbër man maa toog cinq ans six ans bëreewu ma simple ñëw wàcc. ñëw wàcc ñëw di daanaat samay rakk. di daan samay moroomu doom. waaw ak sumay jarbaat. Mhm. loolu yëpp du suma jàmbaar. Uh-huh. sama wërsëg moo des si làmb ba léegi rek. moo tax may dem di jël ay drapeau. ba tey say rak tamit di daan ci biir la. ci biir waaw àdduna moo demee noonu déggoo. Mhm. munoo daal déggoo bëre simple. même boo fi indiwoon mbër bu fi mën. Mhm. mu bàyyi bëre simple cinq ans bu ñëwee. Ah, day wax xatt de. munoo si dara de. mais man ba ma bàyyi bëre simple ak na ma ñëwee. la ma si def. ah gëmmu ndax mbër dina bàyyi bëre simple cinq ans def ko de. def ko déedéet mënut a nekk de. étudiant ou professionnel. Vous êtes créatif, ingénieux et passionné par les domaines qui gouvernent le monde de la science et de la technologie. Profitez de l'offre de formation dans les filières telles que réseau et télécommunications, statistiques et informatique décisionnelle, gestion des entreprises et des administrations, gestion logistique et des transports. Cela vous est offert par Ziguinchor Les inscriptions sont en cours et se poursuivent. Il est encore temps d'effectuer vos démarches pour une admission dans l'une de nos filières. Pour plus de renseignements, visitez notre site web www.zip-du6edu.sn ou par mail secrétariat-du6edu.sn, téléphone au plus 221 33 991 00 68 ou au 460 16 09. conseil yi nga xamante ne dafay décorer sa cuisine ba mu ne boy ak li nga xamante ni moo di sa salle de ànd ak décoration bu amul fenn ay karo yoo xamante ne boo ko defee sa façadu kër da ngay mel ni ku nekk ci panaal établissement Khadim Rassoul seeni karo du jël benn yoon ndox ba noppi ay qualité yu baax la ñuy jaay te seen karo du yàqu waaw waaw kon nag yow mi bëgg ay karo yu baax dawal gaaw seeti waa établissement Khadim Rassoul ña nga nekk ca Parcelles Assainies ca booru marché police seen numéro téléphone 33 820 39 95 wala vingt 77 720 32 44 établissement Khadim Rassoul nag dañuy ubbi du lundi o dimanche ah dama ne kon nag boo bëggee ay kar yu baax dawal gaaw seeti waa établissement Khadim Rassoul ña nga nekk foofu ca Parcelles Assainies ca booru marché police établissement Khadim Rassoul le